Euh, coalition sàmm sa kàddu tous les leaders confondus bu ñu ko boolee seeni ay garde corps daanaka ñu ngi foofee ca Saint-Louis kon mbir yi ma ngay bouger loolee tax na ba Ousmane Sonko démb ci déclaration mu jàpp ne peut-être mën nañu wàññiwaat fitna gi continuer seen i ak seen i mbir parce que la mu doon xaar mooy yoon daal di def ay interpellation daal di teg loxo nit ñu mën a leeral peut-être song yi nga xamante ne daal di nay am donc loolee jur na en tout cas dégel euh, ci peut-être ñu doon séentu jàppante diggante waa Baobab ak coalition. liste Pastef terewul Ousmane Sonko dem na ba yegg fi nga xam moo di ba amal fa ab déclaration Abdou Nguer violence kañ la dem si guddi Baobab waay ban heure ci guddi gi seen caravane bi buntu kër Samba Dia loolu dëgg waaw mais ñu ak euh, ah, arrestation man naa la wax moom heure bi ma fa na ay nitu Pastef yu fa dem waaye guddi du dëgg de du guddi dëgg de d'accord ak ah. arrestation yi nga ah. xam te ne meeku ko 88 personnes 81 personnes lañ si jàpp bi ñu defee tamit euh, fouille ci convoi wu sàmm sa kàddu fekk nañ fa aussi ay arme ak li nga xamante moo di ay lance-pierre ak yeneen ya ca aju euh, d'abord ban jàngat nga ciy def. waaw ci li ñu wax. Hmm. man gisuma fekkewu ma bañ leen di fuyee. mais mais jël jël nañ si ñoom ay matériel quoi ay armes ak fekkewu ma d'après sax bi ma bi ma bi ma defee samay recherche ak activer samay machine d'après information yi ma am ay machine ah waaw waaw <laughs> fii. pour am nga fa ay éléments yi lay topp. yàlla xam na ko. Ah, waaw information kay bu ñu ko fanaanee coow dinaa def lu tout am ci lu ma téye. waaw waxkat day gës. waaw d'après. Hmm. information yi ma ci am booy ne nañ moomuñu dara booy ñoom foofu lañ taxaw. waaw dañoo weddi. waaw dañoo weddi ne moomuñu ko. kon kañ ngeen joxoo ñu benn information ah, loolu du information. ah dégg fekkante dañoo. xaaral xaaral ñoom nee nañ moomuñu ko. ok ñenn hmm. moomuñu ko. weddiwu ma tam police ndax ñoom ñoo def seen opération. ñoom ñoo ko génne ñoo ko teg. <laughs> xaaral dootoo <laughs> man damaa mës a police du ma Ousmane Sonko du ma man ba ma juddoo ba tey musuma tuumaal police. fenal ngeen ma fii yëpp xoolal Serigne Serigne fenal ngeen ma fii yëpp. ne man damaa tudd tuuru police ne dañoo retiré permis fenal ngeen ma fii yëpp xoolal vidéo bi keroog Samuel fii la toog une heure de temps mu koy wër ci réseau yi bi ñu toogee fii di wax mënu koo gis waaw mënu koo gis. parce que dama leen a dévier. maam li ngay wax xam nga ko. saaga leen ci ba pare dama leen ci saaga de ndax dañ doon procureur na la woo ma saaga leen ci. yàq leen ci lu mel ne xeme ñu koy wër. a semaine waaw ngeen bàyyi saaga yi tamit. dañoo réew eh, gars yi faaw nga mais kon nel fi nga nekkoon ci violence temps bi moo tax dama ne. kon ñoom dama ne hmm. Hmm. ñoom. ñenn ñi nee nañ ñoom moomuñu ko contesté nañ. yooyu weddi nañ. Hmm. mais gisuma ci tam lii ah astafurlaa. kon maa yeex a seet gisuma ci jaasi Hmm. am déet. Hmm. waaye nag ah nag. ba muy fuyee. Hmm. xanaa vidéo yi jàll Sénégal 7 police gisu ko. moom moo mu yor jaas yi garde corps Ousmane Sonko mu préciser waat ko di dàq ji nit ci Koungheul loolu xanaa daa rëcc waa police yaakaar naa nag loolu moom amul fuyee xam nga ki ngay fuyee mooy ki nga ki nga suspecté sax ne moom daraa ngi mi ngi yor dara. waaye ki nga xam ne yow yaa ko gis mu yor jaasi nii sëriñ ña loo ci wax yor jaasi di dàq ji nit loolu kay yàqayti mu laa jërut fuye loolu kay dem jàpp la am déet hmm. dem jàpp doo mu laa gis de dem jàpp moo ci des nga gis mbooloom nit rang nii ci tali Koungheul yi ku nekk gàddu sa jaasi parce que war nañ jege vingt personne jaasi yooyu jëndiwuñ ko Koungheul hmm. mais kenn téyewu leen ba tey mais est-ce nekkul comme ni ko tubaab di waxee l'irréparable dafa xew fële ci Saint-Louis gis nañu ay xale yu ñu gaañ yu ñu gor jaasi. kenn lañ fa gor agresseur yee ko gor. mooy borom loxo bi. ah lii de gisoo seen guma jaasi fii de. justement maa ngi ñëw ci ci ci matériel yi. ñu ah, man seen guma jaasi. Hmm. te kee jaasi lañ ko gor. te borom boutique bi moo def vidéo moom ci boppam borom boutique bi mu ne. Hmm. ay agresseur ñoo fi dugg ñii duñ ay politiciens. parce que gis nañ ci vidéo surveillance bi ci boutique bi. agresseur bi muy njëkkante bunt bi waa ji di moom bunt bi bañ bousculer leen dugg ci biir ñu du waa kër baat ñuy ay sàcc lañ. yu demoon di sàcc. lépp ñu ci jot a tegagum loxo lan nga jàpp ne mooy doon suite bi. ah lii doon ah, yoon ñetti fukki nit ak benn. non yoon laa ji diglu ñaar fukki ak ay. gàddu ma ne laa ji diglu waaye nag la loi. Hmm. impersonnelle et générale. warul am ak seen ñee moom kenn waru leen a xalaat a dugal prison bàyyi ñii ci bitti. sa gis-gis yow waaw boobaa nag Diomaye mission yàqu na. <coughs> d'accord ah, waaw waaw. Mm. Mm. lu ne fàng la xam nga ñii sax jàpp nañ ñu naan ñoo moom ak moomuñu. mais kee ñu gis mu yore ci loxo bi moom moomoo. mbirum yàmbaa sax dañ ne kuñ ko fekk ak yow yaay borom. kii nag da koo ŋàbb nii. mel ne euh, Aline muy dem xare. di dàq ji nit punkal mu toll ne moom. duru sa yor jaasi moom. mu yor ko nii di dàq ji nit man maa ko gis moom bu ma ko defaamee nañ dem tribunal. d'accord 81 personnes lañ ci interpellé gis nañu aussi bu ñu defee fuuy jot nañu euh, nangu si ñoom ay matériel effectivement jaasi jaasi bokk si euh, d'abord ban euh, lecture ngay def ci arrestation yi est-ce que moom moo waral jàmm ju ñu nemmeeku Ndakaaru aussi. waaw xam nga ñoom ñëpp dañu ni. Hmm. membre sàmm sa kàddu yi lañ. bu lañ bokk waaw Pastef a ko wax. ah une ma liir. quotidien yi. Hmm. nee nañu ñañu interpellé. sàmm sa kàddu lañ bokk. waaw ñoom lañ jàpp parce que ñoom lañ jaay doole. 77 garde corps waaw ñooñu lañ jaay doole. ay journalistes dafa ne. ñooñoo ñàkk bàjjee des journalistes tellement renseignés. waaw et précis ci li ñuy wax. Hmm. même une yi nga xamante ni ñoo gën a nguur gi xamale nañ ci seen ay xibaar na nañ ña ñu interpellé ay membre sàmm sa kàddu lañu. waaw parce que ñoo amul bàjjen. xam nga malhonnêteté. effectivement Mohamed. Hmm. malhonnêteté. dafa commencé di dépasser réew mi aujourd'hui xam nga lu tax am nañ ab Abdou Nguer mii danga ko posé question. ne ko fuuyee nañ leen mun la du si wax parce que fekkeewu ko du loolu la wax. Hmm. waxuñu loolu. waaw loolu la démarré ay propos. waaw mu ne la du ci wax parce que fekkeewu ko. nee na loolu fekkeewu ko du ci wax. waa léegi comment Abdou Nguer mi ni fekkewut loolu du ci wax mën a gëm ni dem nañ service des mines retirer permis Ameth Ndoye te fekkewu ko. te boobu est ce que ki mu concerné moo ko waxoon rek. mu gëm léegi nag bii ay une ko wax ay une ko wax. léegi dama bëgg wax rek ni nan la mën a gëmee lee mën a ñàkk gëmee lee. te bëtam ah, may est ce que seen du ñu tegal vidéo boobu fekkewu ko fii mu mën a ñëw gëm lii. parce que tout simplement lu ko défavorable fay. vidéo bi ñu defoon conférence bi. seen nañu ko tegal fii mais mais jàppale leen xam nga romb nañ point boobu ñu dellu si xam nga ñoom même daanaka Pastef li a defar propos mën a fen léegi pour ñu bi te temps bi aussi dama ko doon rappeler xam nga ne faaw nit ñi incohérence faaw nit ñi di bàyyi di fen léegi da teg fi vidéo bi seen am na ko foog naa hmm. nañu dimbali ñu teg ko ñu teg matul 30 minutes ñu déglu ko mais temps bi moo tax. non non xam nga doo bàyyi. doo bàyyi mu bëgg a. boobu li ñu ci war mu wax hmm. ma maa gis moom moo yor jaasi te kenn jàpp ko moom moo ko gis te kenn jàpp ko hmm. te du ko ñaawlu loolu mooy naa féq man ñii waxuma bu leen kenn jàpp de waaye dama ne ñoom ñoo amul bàjjen. en tout cas Mohamed dama daaneel xam nga ñoom amuñu bàjjen. xam nga analyse xam nga ñoom amuñu bàjjen. Mm. parce que ñoom dañoo dem fuyee leen ci guddi kii nag digg bëccëg lañ gis ñu yor jaase ak fetal digg bëccëg. mais ñooñu ñu ngi dox seen soxla. d'accord may ko mu daaneel. ah man xam xam nga analyse day am logique. dañuy jógee A jëm jëm Z. mënaguloo juger su may propos te daaneelu ma. Hmm. non yow da ngay manipuler yow woo da ngay léegi dama doon def comparaison rek. da nga nekkoon ci sa logique analyse. logique analyse. en tout cas la ñu xamale ak la ñu xibaar nee nañ fee la ñu bokk. maintenant nag que justice soit faite parce que le ministre de l' intérieur moo tere. xeetu ngànnaay yii. ministre de l' moo tere kenn ku ko yor arrêté bu ko aay maintenant nag kon ku ko yor yaa ngi remettre en cause la volonté du ministre de l' intérieur. ci lu ñeel wàllum wàllum jàmm. en plus yaa ngi défier loi da nga défier loi bi défier le président de la république. Hmm. bi nga xam tout récemment génn na. te quoi que l'on puisse dire dañ waxante dëgg attaques yi ñu ne ko tàmbali mais waa sàmm sa kàddu en l'occurrence seen tête de liste mu ni Barthélémy Dias des menaces verbales ay nit yu la yuuxu Sonko nga ni buñ la yuuxootoo Sonko di nga di nga di nga di nga am foo jaar ak ñoom Bakel. mooy Tamba. nga saaga leen Tamba Tamba du moins. Hmm. parce que des gens. yuuxu nañ turu Sonko seen leader politique nga ni dootuñu ko fi yuuxoo yow yaa moom dëkk bi ante Babacar Ngom looloo ko dal keroog bi muy def kii yom boobu ay xale di ko yuuxu Sonko mu leen di saaga mais est-ce que ñoom ñoo moom république bi ba waruñu leen a tegaat yoon recadrer leen dans ce dans ce pays là dans cette république nit ñi am nañ droit wu yuuxu seen turu mentor politique rawatina nag ki ñu considéré ne c'est un adversaire politique muy romb. ñoom ñooñu tey waa Sonko yi amaana am na fu ñuy jaar ay nit di leen yuuxu Barthélémy Dias turu Barthélémy Dias amaana am na. gisaguñ ko dama ne la Pastef quoi que l'on puisse dire donte nag c'est un parti boo xamante ni à chaque fois bu gisee ni am na lu ñuy teg ci kawam mu woo ay nitam ci résistance ak riposte loolu c'est un droit constitutionnel Pastef mosul en premier lieu woote ay menaces. musu ko def. loolu moom da ngay teg lu dul yoon si kawam. mu riposté wala woote résistance. maintenant nag daaneel si hmm. 30 secondes. waaw allez wax na ko léegi. Hmm. foofu moom d'accord naa si ak moom. à 100 pour cent. mooy. mooy justice une justice équitable. waay bu fekkee gis nañ un militant de Pastef. Hmm. bu yor loo xamante ni nguur gi wala le ministre de l'intérieur aaye na ko. kooku itam dañ ko war a jëli interpellé ko. loolu moom je totalement d'accord parce que on est dans une république. on est dans un état de droit dans un état de droit dañu war a yemale ñëpp. d'autant plus que am na arrêté ministériel boo xam te ne mu ngi nekk en cours. en cours ministre de l'intérieur. loolu je suis Euh, à partir du 17 octobre ba le 17 décembre amul kenn koo xamante ne am nga droit yor li nga xamante ne moo di ngànnaay donc loi bi dafa war a nekk lu impartial donc ñu bañ ko defee rek comme li xewoon aussi 2019 yaakaar naa yéen ñaar ñëpp yéen a ngi koy fàttaliku ak militant pur yi xeex bu métti bi amoon foofu la ca Tamba ba mu amoon benn ndaw bu si ñàkk bakkanam am na ñu bëri ñu ñu interpellé woon si ñi nga xamante ne ñoo d